bu lay wax Serigne Touba kenn la nga koy naf nafee ah doom Serigne Touba kenn la de Xaadimu Rasuul kenn la ah doom mbër mii rek laa dégg mbër mii laa dégg mu ne daan na mbër ma jaaxal mbër ya ndaw yëpp ah doom kii moo jàpp seytaane fa jeewal ma ngay wax ni ayaasa minallaahu inda jeewale wa iblisa is na addaytahoo bi